nga toj photo Serigne Babacar xuncati bi lettre yi ñu fa bind daal di koy jël tasaare ko ci suuf nga yaakaar ni da ngay def lu la mett da ngay def euh, euh, maanaam ñi ko gëm lu leen metti wala da ngay naqaral ay doomi aadama yow yaa ngi ci erreur mm-hmm. parce que ale bi moom tudd na Serigne Babacar si ba pare mhm. photo ba fa nekk mhm. symbole rek la fa rëmsa la fa mhm, ak tur bi ñu fa def wante bu fa jógee woon tey du tere ale bi tudd Serigne Babacar te yaakaar naa ne la mu nekk ci biir xolu nit ñi ci ñoo xamante ne génn na àdduna ay ati ati at ñoom ñuy soog a ñëw yaakaar naa ne dindi foto wala toj foto bu nekk ci ale boobu noonu yëngalul centimètre benn atome ci li nekk ci seen xol voilà non indiscipline notoire la Benoît tey laa ñëwaale xam nga loolu moom moo ñu dal moom moo ñu dal ba gis nga am na lu benn waykat mu sa wax ne léeg-léeg nit def wala mu yàq dundinam moo ko neexul mhm. xam nga sa dundin bu la naqaree dangay mere ñépp di nga mere ba mere ay objet photo Serigne Babacar ñu baal ma ci ni ma ko mën a tuddee photo objet la xëy na valeur bi moom mooy nit ki ñu def ci nataal bi wante bu nekkee tey loolu nga war a dem jël jël di ci acharné wu ngir sotti ci sa mer toogal nga xalaat man lan moo ma metti sama xol li ma metti kan moo ma ko teg mais du fata boobu ndax yaakaar naa ni góor googu bu doon dund ba fi ñu toll nii tey kenn du am lu ko metti ndegam ci biir bàmmeel lay fajee ay soxla rawatina tey nga xamante fi ñu toll nii donc je pense que am na loo xamante ne ku ko def bu ñu ko gisee sax yaakaar naa ne jarul ñuy demande question war nañu xam ne kii du nit. wallaahi voilà kii du nit dafa manqué. Mm-hmm. nit mu ku manqué mënta weesu kooku mm-hmm. noonu. moo tax nag non manqué la ba nuwaa nit dina sañse ba jekk. Mm-hmm. nga xool ko ay cëram yépp man mu sañse ba jekk xeeñ lu neex intérieurement il n'est pas normal. ce n'est pas pour rien que tubaab tudd la baatu euh, trouble psychologique. du feeñ ci colin. du feeñ aussi ci melokaanu doomu aadama mais trouble psychologique ci jëfin lay feeñee am na koo xamante ne mi ngi doxee sañse ba jekk xen lu neex yor xaalis te trouble psychologique la feesee dell moo tax nag li war a jiitu ci faj indiscipline bi am ci Sénégal mooy nañ ko fajee ci biir kër yi Sénégal nañu waxante dëgg mais jur yépp am responsabilité di ci li fi xew te dama dama am ndeysaan ku ma ku ma envoyé benn mbir mu nekk loo xam ne dama toog di ci méditer ñu ne euh, jur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk àdduna ba génn àddina bu ñu nekkee yomal xiyam dañu bu ñu bàyyee fii njaboot dañ leen di yee ne la xoolal sa doom ji nga bàyyi àdduna li mu nekkee ñu demandé la le pourquoi loolu jar na waajur rey boppam ci yar njabootam parce que yar ñaar la bul yar ngir mu màgg tekki jariñ la yaral ngir mu bañ a doon sa gàcce yaral ngir mu bañ a lor Prospère dafa wax lu am solo samay njaboot damay def yenn saa yi ma solo la short def deux pas en avant deux pas en arrière jote ak yow li ma ciy jublu moom mooy tey sama fierté mooy léeg diw ne ma ndekete diw sa doom la mm-hmm. ah moom kat macha allah mm-hmm. fierté boobu noonu muy am du alal boo xamante ne da ko génnee ci poche am fayul nit kooku pour mu waxal ko ko ba ko nit kooku di wax moom fekk na la doomam jëflanteeg nit kooku fekkewu ko. amiin loolu alal la. ala dëgg la alal la bien la boo xamante ne li ma ci bëgg wax mooy du lu mu ñuqi ci biir poosam mu nekk alal koom-koom. Hmm. wante li ci gën li ci li ci am solo moom mooy lu mu rayante la lu mu ñefe la. waaye lu mu dogu la ci boppam. parce que yar bi njëkk ci àdduna moom mooy dogu. Hmm. indiscipline fu ñu ko tuddee ñàkk yar moom moo dul mhm. léeg-léeg nag nga gis ñu ne koo xamante ne yar nañ ko ci biir këram mu génn ci mbedd mi yàqu gis nga yàqute fu mu am dafa am loo xam ne dafa ñàkk il y a absence d'une chose quand il y destruction am na lu ñàkk wala am na foo faayee parce que tey li am léegi moom mooy ñeewantal ci wàllu njaboot ñeewantal ñeewantal la papa xam nga nan moo tax tey man mën mën naa ko natt tey ci sama bopp parce que réew mi léegi kenn sañatul jël exemple ci lu nekk xoolal li fi euh, am euh, importance ci émission bii passé li fi li fi nit ñi wax li am solo am fi importance nekk njàngaleen lu ñu fi génnee lan la intéressé nit ñi mooy lu ñu wax ci benn quartier ñu jël ko ku ci nekk di ko interpréter nu mu leen neex ça pas de sens li am sance moom mooy li ñu fi waxtaanee. li am sance moom mooy li ñu proposé pour que indiscipline bii dañ. Mm. parce que li am tey ñu di ko waxtaanee fii gis-gis mooy li ñuy ñurumtu ci biir kër yi. Mm. li ngay génn si mbedd mi teg ci sa bët mu naqadi la nekk nañu ci réew mi bu njëkkoon li taxoon yari réussir mooy génn bi ngay génn si mbedd mi gis doomu jàmbur mu def naka sudul noonu nga am sañ-sañu jubbanti mu dem biir këram boole ñu duma ko dollil ko ci. mais loolu amul tey. doomu jàmbut boo gis tey mu def naka su dul noonu sa première ragal bi ngay am mooy ñëw jubbanti ko wala wax ko ay waajuram. boo ko jubbantee mu jànni la nga ne wax ay way waajuram mu ne la sa yoo nekku ci. léegi loolu noonu bu dee foofu la ñu toll kon nag moom mooy lu neex waaye na ko def ci mbedd mi kenn du jubbanti kenn bés bu yàlla sàkk nga janoog lu dagg sa xol. am na loo xamante ne en fait léegi suñu mbedd yi léegi jaratul ñuy génn si biti bu mu nekk mbedd mi la rue a été transportée dans nos maisons c'est quoi la rue dans nos maisons c'est l'internet il faut parent yi vigilant def attention parce que xam nga ndax lan yar sa doom mu ragal la amul sens parce que boo teewee di réglé boo dëddoo mu delluwaat ca na mu meloon parent yu bëri loolu moom moo leen nax dañu xoqatal seeni doom tiital leen ñu ragal leen ba bu ñu duggee ci kër gi fexe mel noo xamante ne ñoom noonu la ñu bëgg bu ñu génnee ci biti def naka su dul noonu ñaata jur lañ fi woo que ce soit ci établissement wala ci bërëb wala ñu woo la ci mbedd mi ne la sa doom moo def sàngam nga xam lan moo la xam la diw xalaatuma sama àdduna ni dina def lii doxewu ko waxewu ko xaw ma woon ni sama doom capable na def nii <laughs> parce que nag lan moom mooy gis nga tey li Serigne Cheikh doon wax naan l'humanité triche avec l'humanité moom moo ñu dal dafa dégg l'humanité triche avec triche avec l'humanité les vieux trichent avec les jeunes les vivants avec les morts dafa dégg. loolu moom moo am tey ku ci nekk da ngay tricher xam nga tricherie bi moom mooy lan mooy da ngay fexe tey ñi nga xamante ne ñoom nga fonk bu ñu teewee nga fexe solo melokaan bi ñu bëgg ñoom waaye bu ñu dëddoo nga mel nu la neex. ba am yoo xamante ne bu ñu dee diw moo ko def ñu ni mukk ci àdduna sañuñu ko xam nga tey réew mu ñu fonkul ay kilifa réew mu jaral tiit la di saaga ay kilifa di loolu moom mooy suñu réew mi ñàkk koo fonk moo tax nga di ko saaga parce que kilifa bu nekk suñu ko jàppee sa bopp tey su ma xalaatee ni su ma saagaa Père Mbaye Ngoné su ma génnee ñu saaga sama papa te ku saaga sama papa sama kanam ma jaay la sama bakken jaayal sa bakken ci ba doo saaga papay jàmbur parce que nag am na loo xamante ne la Serigne Babacar doon wax naan saan bu dem day dellu si la moom mooy loo def sa baay maa nga def ko ndeyu jàmbur danañ ko def sa ndey man su ma duggee ci bus mag ñëw ma jóg fi ma toog may ko xam nga ban euh, euh, intention laa ko maye damay xalaat si sama xel ni sama yaay dafay dugg bus xaaral ma may mag bi ndax ëllëg même su ma ko fekkewul su duggee bus ndax lii ma def yàlla dina def am ku jóg may ko mu toog c'est réciproque parce que en gis nga mentalité bi ñu war a demee ci réew mi pour toxal fi indiscipline bi xam nga moom mooy lan mm-hmm. mooy loo bëggul ñu def la ko mm-hmm. loo bëggul ñu def ko sa wayjur mm-hmm. loo bëggul ñu def ko sa jegeñaale fexeel ba yow bul ko def loo moom yow loo ca sañul bu ko sañ ci lu keneen moom li yonent bi waxoon ñu mu gën a simple kenn ci yéen du gëm fekk bëggalul moroomam la mu bëggal boppam mais tey problème bi moom mooy bëgg ngaa yàq safia bëgg nga fekkee fu ñuy waxee ñaawteefu Safia waaye bëggoo teewee fu ñuy waxee yow say ñaawteef damay làq doom duma doom sama dooma gën sama dooma réglé sama dooma baax mm. waaye doomu jàmbur mm. ak yées ak a araam ak bon mm. mais en loolu nga gañe ci lan parce que fi ngay làqee sa doom duma doomu jàmbur sa doom day génn keneen duma ko ci sa kanam mm-hmm. doo ci mën dara mm-hmm. xoolal li am tey fayantoo defante nga gis nit bu yàq li muy yàq ndax lan dafa am métitu xol ci la koy yàq baayu jàmbur ñu jël ko denc ko ndax ay mbirum ñàkk fayda suuf xëccoo am na amul diwa moom diw moomul nga sulli baayu jàmbur jël ko denc ko hôpital yow sa baay ñu jël ko denc ko te bu ñu sulli woon sa baay ci bàmmeel nga jël sa bakket teg ko ci suuf ne nañu jéggi sama néew hmm. en fait bu ñu demee ba toll foofu noonu nañu xoolaat kon ñun li ñu nekkee bañuñu réew mi bañuñu waa réew mi suñu bopp la ñu bañ mm-hmm. parce que am na koo xam ne boo defee mbir mi defoo ko kenn sa bopp nga ko def mm-hmm. li ñu naan ne olof moo ni lu waaye rendi ci sa loxo lay naaj loolu kese moo fi def fay ñeme ñu bàyyi la yow itam nga waaw rapidement rek ah, Ardo je crois que daanul seetaan benn Ardo parce que am na koo xam ne dama daan toog ne nit ki am na loo ko boo loo xam ne boo ko defee yaa xaru man yàgg naa wax loolu fii ñu ne am na loo xam ne nag si àdduna bu fekkee dañu toog si yenn dese yi ñu ne ma loolu du yàlla pouvoiru yàlla ak loolu méngoowul damay tiit donc pour man ku génn àdduna ku génn àdduna rek si loxo borom bi la jaar si yenn condition yi ah mooy condition yi mu lay wax non si yenn condition yi ah, si loxo borom la jaar parce que non non non bravo Ardo anyway ci yenn léegi su ñu ñëwee si thème bi ñun suñu dëkk comme ni ma koy waxee da ngay yeewoo indiscipline sa biir sa balaa ngay jóg sa lal sax da ngay yeewoo indiscipline si mbedd bi nga koy déggee man foofu laa bëgg ñu basé wu. Mm-hmm. da ngay toog sa néeg sa tëre demi jot dend ak yow ki nga xam ne day ñëw pour délivrer gaz moo lay jëkk yee. ndeg lan indiscipline. jàpp gaz yi di sànni si suuf. boutiquier bi di xëcc ngay dégg gëng gëng gëng sa heure et demie hmm. indiscipline boobu ça toujours continuer.